jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci sita Fadia ki ñu fi woo ndaanaan la ci làmb xale la boo xamante ne làmb bàyyi nañ ko xel waaye xale la boo xamante ne làmb am nañ ci moom cër muy Garga 2 mbokk yi Garga 2 wala laa rek xale bi nga xamante ne mooy tarkindaa bi di Mama Lamine tey nag ñu ngi fii ci Cité Fadia <laughs> ñi ko organisé du suñuy naataangoo fierté ci làmb muy waa Vox Arena ñu leen di jëfal bu baax ci innovation bi nga xamante ni indi nañu ko ndax làmb yaakaar naa ni du guléet groupe de presse wala site internet di organiser li nga xamante ni mooy làmb tey nag dañuy jëfalaat bu baax a baax waaye tey boo ñëwee fii si dafa xam ni ay mbokki Garga 2 ñëw nañ xam ne ay naataangoom ñëw nañ xam ne ay xaritam ñëw nañ waaye xam ne ay am di jàmbam ñëw nañ mu nar a laaleeg Mama Lamine Garga 2 nan lay waajee wàccaay gi nan la ciy dunde mais da ngeen ciy ànd ak Baye Djili ak sëñ Basiru borom taar bi ñu dugg ci biir tuuti wan leen ambiance wan leen cosaan wan leen lépp loo xamante ne day neexal làmb ñun laa ak yéen guerre bi du mus a jeex kaay sëñ enfant de a Assainies ngi noonu xale baa ngi noonu ndeysaan Garga 2 ñëw na xale la boo xamante ni Parcelles la fekk baax Cité Fadia la fekk baax waaye xale baa ngi noonu ndeysaan Garga 2 ngi noonu ma nga ànd ak Ada Boy Bawal ndeysaan ndeysaan ma nga noonu ndeysaan xoolal lii moo lay wan ni am na lu mu yor ci loxo bi na tànk càmmoñ am na butéel bu ñu ko jox moom Garga 2 ndeysaan ma koy wax seex na da koy buusu waaw waaw da koy buusu buusu na ko buusu na ko côté wala càmmoñam buusu na ko ñetti yoon moom Garga am na lu ñu koy jox ndaysaan am na lu ñu koy jox ndaysaan am na téere bu ñu ko jox léegi lamba <laughs> goog ndaysaan jaaral di jaay droite waa mbër sa jaamu ay sarat la bilaay walaay indi garga deux muy waajal bis bilaay ñu indi suñu garant garga deux barki alxuraan ku ñàkk i borom baax dañ koy ñaanal yàlla mu defal ko ndam lu rëy waa nu fas yaagee sigil nu fas yaagee sigil kilifa fas ku si kuy xare fas nga daan yóbbu moo tax tey man maa ngi garga doo yeeg 4-4 doo yeeg nga ni ci li mu jëm xare la diggante wa maama la. bu mën bés. moo tax ma indi ko bi yaa moom sa sareet da walal. barki sëñ eh waaw gaay lamba garaaw lamba garaaw ndeysaan di joor la jëm ma daw ndeysaan ndeysaan ma nga noonu di daw ma nga di daw ndeysaan Papa Sow a ngi noonu dugg si dugg si base ndeysaan mu ngi ndeysaan papa Sow ngi noonu. papa nuyu naa. ñu ngi lay fay. baa yaa ngi am jàmm. Gora da ngay hm? def da ngay def cercle. baa yaa ngi am jàmm. waaye ñu ngi sant bu baax ñu ngi sant bu baax. ngeen waajalee Garga 2 mu war a bëre ci combat boo xamante ne daanaka mun naa ne xaale la diggante moom Mama Lamine. waaw alhamdulilah rabbil alamin combat la bu neex muy diggante Mama Lamine ak Garga 2. Bas Fadia Garga de li mu woon def yëpp def na ko ñu ñaan yàlla rek may ñu ndam incha allah quoi. yéen ñaar yéen a doon di wàcca di nekk ci préparation combat nan la ko waajee boo dem ci làmb ja lan nga koy yem. waaw mais liggéey nañu selon adversaire bi lañ liggéey rek quoi. liggéey noonu xam nañ foo fooru ay euh, fooru ay euh, Mama Lamine ñu liggéey ci astaghfirullah feebar Mama Lamine ñu liggéey ci fooru Garga 2 dajale ko rek yóbbu ko ñaan yàlla may ñu ndam incha allah. waaw maa ma ne combattant la bu ñu dem bëre doole da nga yóbbu ñaar da nga yóbbu bëre da nga yóbbu xeex quoi xam nga ñu fay fekk bu fekkee baax la alhamdulilah waaw moom mooy ubbi premier combat bi Lansar ndax yow tamit yaa ngi biir Lansar ba léegi waaw ñu ñëpp ñu ñëpp ñu ñëpp benn lañ rek ñu ñaan yàlla subala yàlla defal kon dam incha allah rabbi quoi loolu la jar a ñaan quoi waaw le premier incha allah incha allah dinañ ci ñëw loolu dina neex waaw incha allah ndeysaan aada booy ba wala ñu noonu ndeysaan talfa gi noonu wala déet ndeysaan Giro a ngi noonu ndeysaan waaye maama am nga bu garaw Garga 2 ne ci kawam ci ndoxtu bëre waa Leewtoo war nañ laa mën a ñu jël la nga fi taxaw fii war liggéey toog foofu yow waa Leewtoo Pape Thialis dalaa war a dàq dalaa war a dàq grand jeune nuyu naa la ça va maa ngi lay sama sant yàlla bu baax na mën naa la a naa la gis mooy da nga garaaw ana nga foo ne kontaan naa ci gis la ni dara tey ngeen indi seen doom seen poulain mu nekk xale boo xamante ne lamb am nañ ci yaakaar ci moom muy Ganga 2 nan ngeen ko waajee ak nan la fas yéenee dem ci lamb waaw mais dañuy sant yàlla comme ni nga ko waxee Garga suñu doom la et suñu jarbaat la mais suñu rakk la mais suñu xarit la aussi et nekk bu yaru bu làmb am yaakaar ci moom waaw loolu bokk na ci li tax tey ñu ñëw mais loolu yëpp bu ko weesoo dafa am lu gën a tax ñu ñëw parce que dañu am euh, euh, dañu dëkk ak moom dafa dëkk ak Amadou Ba la mooy la ministre ah donc muy rakkam di doomam di léppam donc ñoom bi ñëwee wax ko dafa am combat boo Amadou Ba ne euh, dem ngeen jàppale ci ko ñu ànd ak Nazer mooy rakkam mi ngi dañoo bokk ndey baay Nazer sëñ Fallou Laay Yandi Sadr ak si say fi ne délégation bi yaatu na si turu Amadou Ba lañ fi ñëwee tey donc ku ne xam ne ne Amadou Ba euh, ministre Sénégal yëpp la rawatina population Parcelles Assainies te ku ne unité 6 ne Fadia donc loolu moo tax waral suñu teewaay muy ni jàppaleem ak gunge ko ñaan yàlla aussi yàlla defal ko ndam parce que Garga mérité na loolu. mën naa fi ñëw ñaari casquette. bu njëkk mooy doomu parcelle ñaareel bi mooy Amadou. doomu parcelle fierté parcelle mais li tax ñu gën a tey tey fajaa Sénégal yëpp taxaw ci ginnaaw Garga moo tax ministre na lu ngeen mën a def rek ak lu ngeen mën a lu ngeen xat-xat dem leen ngeen jàppale doom jooju muy Garga parce que sama doom la mais sama xarit la parce que yaram ak tegginam su ma nekkoon Sénégal maa ñëwal sama bopp mais tey bu rakkam ñëwee ah, euh, Nazer Ba ànd ak Fallou rek doyoon na pour ñu ñëw mais dañu xam ne man fi laa dëkk rek ñu ne naa ànd ak Yandé ak Fall gunge Garga te incha allah rabi day am waa aja mi ngi noonu kontaane naa la sama rakk ji merci beaucoup. Nazer nuyu naa la. fay naa la. maa ngi am jàmm. sant yàlla. tey ñëpp xam nañ ni yaa ak Amadou Ba a bokk ndey ak mu yónni la tey ngeen ñëw taxaw ki nga xam ne. du ko jiite. ak sëñ Fallou man si ginnaaw laay nekk kon d' accord merci. léegi nga ñëw nan ngeen di nan ngay soutenir ki nga xamante ne mooy Garga 2. foofu du waaw du waaw lu ma ci wax parce que comme dañoo am grand frère bu ñu àndal moo yor lépp. voilà ba waxtaan nga moom rek lu mu wax noonu la. am na solo merci. ma lay jaajëfal. Pape siyaar naa. dellu siyaar. maa yaayam tam ñu ngi sant. looy bàkkal Garga 2. Garga li ma koy bàkkal bari na ndax. déeg seeg sama rak. ku yaru ku baax ku yaru ku ku dégg ay tëgg kanam samay xarit lañ yee ñi koy tëggal rakam ki koy tëggal ku mbokkal ndeeg baay daam bu góor man la ko tuddee kon c'est la famille mais damay ñaan nag sama goro bi am ndam ci barke Sëñ Fallu yàlla moom moom ndam moo joxe ndam ci gétt bi naan ci yàlla na ko garga daan jël bu sedd guy ci barke Mohamed naa bàyyi nga bëre léegi dégg naa bàyyi nga. waaw du ma sax bàyyi fu may jaar di bàyyi bàyyi ma bàyyi ma ne maa ngi ci làmb ba léegi. yaa ngi ci làmb ba léegi. làmb ba léegi waaw. amagu ko. waaw amagu ma ko mbaa amagu ma ko mais maa ngi waaj na bëre. Ah. bàyyi ma bëre bàyyi na bàyyi na. bàyyi na bàyyi na bàyyi bi nga yor nii instant yii est-ce que mën nga jël. waaw mais lépp làmb dañ koy waajal rek mais bàyyi ma de waaw maa ngi làmb ba léegi waaw bu la joxoon avance léegi léegi. barke Serigne Touba. ah ñu bëree mais ñi la xamul kan mooy sa catégorie ci làmb actuellement boo doon wax sa catégorie. na dafa taxawoon nag ñëpp a boole woon ñëpp a bokkoon taxaw quoi. ñëpp a bokkoon taxaw xëy na nag moom peut être am na ñu bëree am na ñoo xam ne sax lañu. mais man moom làmb bi moom moo nekk gox quoi sama taay dafa may ñan nga bëree ci làmb ñan ak ñan. man euh, ñoo bëree bëri na de waaw ñoo bëree bëri na de yàlla maa daan bay daan booy Louga xam daan booy kii euh, nii la nii la kii mais dégg naa moom sax jour daan moo ma daan nii la ko nu mu tuddati Soundiata Keita mais nee na ma daan mais dinañ ko leeral bu leeral yàlla na joxoon Soundiata Keita ba mu waaw bon Soundiata bu ma jëlee saa yi mooy loolu Soundiata bu ma jël xam naa loolu waaw non bu ma jël ma man man non maa ngi ma ñëwaat maa ngi ñëwaat maa a ay jaju biir Jëli Fall na xam dafa jàmm. nice. am nga combat wala amu ko. amagu ma mbër yooyu tàppel lañ. yan mbër ñoo tàppel. ñëpp ay bul laal ak ñoom ceeli jëlali seen biir yàgg nañ bëre seen biir nañ ma jël ñu bëre. ay ragal lañ. lu loo indi fii tey. sama doom ndey moo xew la ma ñëw sama xarit sama lonko sama lépp bu ko ñaanal yàlla may ko ndam bu sëtu kuy bu gaaw si kaw maam la waaw. waaw bu ko yàlla fayoo xolam rek ndam la yàlla waaw waaw waa ju baax la waaw ndax dëgg yàlla waaw ñu ngi koy ñaan ndam bu sëtu kuy. Balla Diouf lamba yéeme wala Papa xale yi topp nañ ko maa ngi lay maa ngi lay fay. maa yaa ngi am jàmm. sant yàlla bu baax alhamdulilah mu mel ni da ngaa yëngu. mu mel ni yaram bi daa mel ni am na lu ci lekk ba léegi de. waaw yaram bi de waaw yaram bi moom saa su nekk ñu sañoon dara di ci nekk ndax ba léegi xale lañu. waaw di sant yàlla bu baax. ci ñëw bi ñu ñëw vraiment fekk si suñu frère fii ci Fadia. ñëw pour dooleel ko. ñëw pour sutenir ko. bapare ñëw pour ñaanal ko yàlla. yàlla may ko wér. yóbbu ko ci bés ba. te yàlla may ko ndam bu sedd li ma wax rek mooy bu fekkee liggéey rek mooy joxe ndam sama xel dal na bu fekkee ni joxe cër mooy may ndam yàlla dina ko may ndam bu fekkee ni yaru ak respect fonk li ngay def mooy may ndam yàlla dina ko may ndam parce que liggéey nañu gis nañ li mu liggéey ah, sunu xel dal na li ci des rek mooy ñëw gunge ko mu ànd ak ay mbokam ñaanal ko yàlla yàlla may ko ndam. en tant que combattant tey ñoom ñaari xale yi ñu war a laale nekk xale. Garga 2 di bëre combat capital diggantam ak Mama Lamine boobu ñoom ñaar boo ma doon analyser ku ci nekk lan nga may wax ci ñoom ñaar. waaw ñaari champion yu mag a mag lañu. ñaari xale yu nekk seen yoon la. ñaari xale yu làmb soxla lañ. te ñaari xale yu am avenir lañ. li ci nekk rek mooy. làmb foog mu am ku daan. am ku daanu Mama Lamine mondu làmb ñëpp xam nañ ni champion la xale bu mën a bëre la xale bu bokk ci làmb la. Garga 2 tamit ñun ñu nangul ko mën a bëreem at bokk ci làmbam at xaleem waajal ko nag waajal ko xam ni ci bés la jëm waajal ko nag ba pare ñëw gunge ko sunu xel dal ci lool. di ko ñaanal yàlla nag yàlla may ko ndam parce que làmb moom foog mu am ku daan at ku daanu te yàlla def na ni ci côté Garga laa féete donte ñun ñëpp ay sportif lañu suñuy rakk lañ ñoom ñaar ñëpp mais dañuy ñaanal yàlla Garga am ndam bu sedd ci kawam. jaajëf jërëjëf. bëre naan nga violete ma manal la yaay du man nga ci bii bor du man nga ca boore ninke ay mbete xaata ji walo xalifa borom mbay si mbay si xalifa sama waaji gore ndeysaan moo doo ngi noonu dugg si na moom a ngi noonu ndeysaan ndaysaan xale baa ngi noonu ndaysaan ma nga noonu noonu Modou kaay ci lépp lu nekk moo tax benn la daal. yëpp benn la waaw Garga ñu lay nuyu di la ziar di la bëggee di la jox sa wàccuwaay. waaw ange billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu mbooloo mi ñëw fii yëpp di nuyu journaliste si nga xam ne ñoo teew fii bàyyi seen yitte di nuy waa Cité Fadia bu baax di nuyu waa Parcelles Assainies gis naa tey ni génnee wax dëgg yàlla bég naa trop Parcelles Assainies Cité Fadia Unité 6 xam nga parcelle 1 ba 26 bàyyi ma kenn Cambérène 1 Cambérène 2 naa seen génn bi génn bég naa ci trop di nuyu mbooloo mi fi taxaw ñëpp di nuyu dawalkat sareet yi nag ñoom njaga ñaa xam nga di leen wax ni wax dëgg yàlla bég naa trop di nuyu sama mbokku mbër yi nga xam ne dañoo bàyyi seen i tépp maa leen di nuyu ku nekk sa tur sant di la wax ni bég naa bu baax a baax mais Garga ngay pare le 19 incha allah gis naa parcelle Fadia Modou Lo Papa Sow mun ñu leen lim macha allah ñëpp génn nañu mais sa adversaire lan nga koy yóbbante ak loo koy wax bis ba incha allah. waaw di ko ne na waaj rek ànd ak ay mbokkam ñun ñu ngi waaj ànd ak suñu mbokk tey waa parcelle gépp ma jàppale xam nga ñu sant waa parcelle gépp ñoom Modou loo xam nga waa ñoom Papa Sow suñu grand xam nga waa Dóor dooraa tamit sant naa ñëpp Goro Sock xam nga di nuyu nag waa kër Amadou Baye parce que sono yi nga gis fi yëpp ñoom ñoo ko def xam nga génne enveloppe bu duun indi ko di woo nag suma grand laaj Diop bu baax directeur Lonase di ko wax ni ko combat bi combat la na ci jàpp bu baax a baax jëndal ñu di sant nag maam père ba bu baax a baax di ko wax ni ko combat bi la di woo nag ministre ministre de la jeunesse ah, ne nataal ñu ngi koy woo bu baax a baax di wax combat bi moom it na ñëw jàpp ci di woo Moustapha Camara di ko wax ni moom it ñu ngay ñaanal mu tane bu baax a baax na woo autorité tamit ñu jàpp ci bu baax di woo maire Golf Sud di woo nag sama benn grand bu baax bu ñuy wax grand maanaam Gomis borom école laal stages gis naa jàppale mi di wax kontaan na bu baax di woo sama benn grand Dame Gueye depuis Canada Dame France di woo Dame Diouf depuis Canada di ko wax ne combat bi combat am la na ci jàpp bu baax a baax di nuyu nag journaliste si toog fii yëpp waaw. Ah, yan ma.

jàpp ko daan ko ci kattanu yàlla ak mbaaxam bu xeexee ñu duma ko su bëree ñu daan ko. xeexee ñu duma ko su bëree ñu daan ko incha allah rabbi. Garga de waaw ñu gis ni Mama Lamine xale la boo xamante ni bis bu jot day wane boppam ñu gisaat beneen Garga de bu bees nga ñëw concentration bi surtout état de forme bi parce que bët day liir macha allah ñu gis beneen Garga 2 préparation nan nga doon préparé combat bi ak yaata séance nga ci doon par jour. waaw di sant yàlla nag lool nag maa ngi koy nuyu sama coach yi. Hmm. coach waa Jàmbaar Wrestling Academy yëpp ak mbëru parcelle yëpp parce que mooy ñu ma jàmm mooy ñu ma salaam. lépp lu ma war a def rek wax dëgg yàlla may ñu ma ci jàmm ak dégluwaay ak dégloo gars yi comprendre nga ñoo ma doon yee fajar di sant Papa Sow bu baax a baax a baax parce que mayu ma jàmm maam per ba aussi ñu ngi koy sant ak doomam Mansour parce que ñoom Papa Gueye ñoom Pape Ndiaye xam ga may ñu ma jàmm quoi ay ñoom góor a njool xam nga góor a béy Gora Sock mi taxaw mayu ma jàmm suba mayu ma jàmm ngoon fu ma naree noppalu sax ñu nu ma doon noppalu di sant tamit Alioune Mbengue bu baax a baax parce que yóbbu na ma fu nekk ci àdduna barke Alxuraan parce que combat bi daf cee sonn di nuyu sama grand frère yi ñi nga xam ne ñoom laa bokkal baay ñi ma bokkal ndey ak baay yëpp dinañ ci ñëw sama doom baay parce que gis naa non maanaam may ñu ma jàmm loolu lépp ci préparation bi laa lay wax hmm. bëgguñu ma xiif bëgguñu ma mer xam nga bëgguñu ma manqué dara di sant sama soxna bu baax ak sama waa kër bu baax grand yaaram Guèye moom damay ñibbi sama kër sax xoolal mu may woo téléphone naa ma defal lii lii baax na ci sportif defal lii moom it ñu ngi koy ko fan bu dëgg wér bi yaram wax dëgg yàlla ñun mbëri parcelle yëpp amal nañ ko sant moom grand yaaram kenn ñoom Papis xarañ ñëw ñëpp a doon bàyyi seen di ñëw barke alxuraan nee na da xalamal di la liitir di la wayal ba ci digg géew mu jël li moom dem xam nga man doomu ñeeño laa boo ma xalamalee damay gën a xabtalu soo ma tëggalee damay gën a xabtalu comprendre nga su ma defalee loolu koy daan ko ci kattanu yàlla nee na moom tarkindaa la du dellu ginnaaw li mu war a wane ci yow la koy wane man xam nga man xaw meew ma tarkindaa ak turkindaa li ma gëm mooy li ma liggéey ci kattanu yàlla le 19 incha allah rabi ñu ngi wax parcelle gépp nañu génn ñu mobiliser mobilisation bu am doole ñu dem jëli li indi ko ci incha allah. tey doon seetaan ngay ñaan Mama Lamine seen diggante yéen ñaar ngeen war a jëflante ñaan. non Mama Lamine amul lu ma koy ñaan na def lu ko man li may arrangé def ci man du ma parce que gars yi neen Mama Lamine may favori. ñëpp dinañ jox favori. non Mama Lamine lañ jox favori. jox favori. waaw nan ba bis wala da ngay mbapat. non man làmb lépp lu mu laaj rek parce que ñun dañoo nekk ci ay préparation nekk ci ay loxo dañ naa ma lii ngay bëree loolu laay bëree incha allah rabi di sant nag waa jàmbaar Wrestling Academy yëpp di sant waa Parcelles Assainies waa kër Amadou Ba nag gis naa seen taxawaay bu baax a baax bégg naa ci ñoom di leen wax ni grand Seydou gis naa taxawaayam bu baax a baax wax dëgg yàlla. di ko ñaanal yàlla ko suñu borom defal jàmm grand Zemkan ah grand Nazer xam nga waa kër Amadou Ba yëpp. di woo nag encore Lat Diop di ko wax bi combat la di nuyu doomu ndeyam yi ñoom Gora Mbaxal xam nga ak doomu ndeyam Pape Sall ñoom wax dëgg yàlla ay Tafa xam nga ak ak ak Tafa woo na ma tey ni ma la Diop dina ci jàpp bu baax di woo Cheikh Fidior Khadim Touré di woo sama mbokku ñeeñooy di leen wax ni combat bi seen combat la di woo Dame Diouf depuis Canada di ko wax combat bi mu jëndal ma ay billets yu bëri comprendre nga Lat dina jënd billets yëpp kon loolu leer na incha di woo nag waa di woo waa Ndande Fall adversaire déggoon naa yeneen adversaire avant kii di Mama Lamine yow mosoon nañ waxtaan lu yàgg-yàgg moo tax nga toog ay ati at at bëree woo mais est-ce que combat bi amul benn particularité yow yaa tànn Mama Lamine wala boo moom moo imposé wu ba yeneen combat yi waroon am amul. non xam nga ñun ay mbëru làmb lan dañoo ne ci ay loxo ku ñu wax ni bëreel ak moom rek ñoom loolu la ñu kooku la di bëreel Mama champion la def na ay preuve am nga li ma la wax ñun aussi toog nañ lu yàgg a bëre laamu boole ñu ñu bëree war a bëree incha allah rabi di ñaan yàlla may ñu ndam ci kawam rek bu soobee yàlla. mais gars yi la waxal si combat bi léegi looy wax si combat bi. non combat bi ci a wax yëpp wax naa ko li may wax mooy woote parce que aussi làmb ji promoteur bi daf ñoo fay xaalis pour ñu mobiliser ko. di woo waa parcelle gépp waa Ndande Fall gépp koo xam te ni doomu Ndande nga rek maa ngi lay woo waa Casamance gis naa seen taxawaay bu baax a baax. sant naa ñëpp képp foo xam te ni dem naa fa ñaan lu rek du nuyu waa Touba waa Darou Salaam waaw ñoom si Sidi Mbacke waa Baye Baaxe. di leen wax combat bi ah. oui nga nekk euh, premier pensionnaire bu équipe bu bees bi nar a euh, takk sa ngem. est-ce que pression bi du métti ci yow. non ñun professionnel lan yàgg nañ ci làmb xam nga ma la mu ngi mel ni ma nekk parcelle di préparé ma parcelle ba tey. comprendre nga samay grand lan dañ may gunge di nuyu waa Dóor Dóoraat yi nga xam ne fa nekkoon staff bi yëpp bàyyiwuma kenn parce que gis naa seen taxawaay ci combat bi. ay vieux xam nga dañoo bàyyi seen yitte yëpp Cheikh Thiam bëgg Fallou maa ngi koy nuyu xam nga père Gora Diagne di nuyu sama mbokku mbër yëpp nag di nuyu Galaye Ndour sama xarit sama doom day ngeen combat bi a bëri ngeen xeex loolu wax xam nga bëre dóor moom bu ñuy wax lépp nga yóbbu da ngay yóbbu xeex yóbbu bëre parce que kenn du dem guerre di fàtte sa arme comprendre lépp lu làmb ji laaj ci kàttanu yàlla dinañ ko def di woo waa Parcelles Assainies yëpp non loolu nañ bàyyi ba le 19 incha allahu rabbi te ñu si tuus mi non tous ci mel ne Arma tous mi xam nga ci mel ne tey boo xoolee open press ni mel rek open press gëj naa mel nii dëgg la comprendre nga géwél yëpp gis naa seen taxawaay ak gawlo yi xam nga di woo sama mbokk ñeeñooy encore une fois di nuyu sama mbokk yi di nuyu doomu ndànd yëpp di leen wax ni combat bi dama soxla ñu jàpp ci bu baax a baax di woo Sidi Tane di woo a benn grand looy yóbbante Mama Lamine Mama Lamine li ñu na waaj rek na waaj parce que ñun pare nañ wax dëgg yàlla jumbo tamit gis na ndox bu bari bi mu fi indi xam nga di woo sama grand Kéba Kanté di woo waa France ñoom Cartouche ma nañ ma xaalis bu bari daan xam nga Modou Lo jàpp na ci bu baax Papa saw gaa yëpp daal gis naa seen taxawaay di woo encore une fois Xaarim Touré di ko wax combat bi combat am la moo ko Cheikh Fidio bëgg ñu jàpp ci bu baax a baax du sant tamit kii nga sol nii kan la waaw kii mooy grand Serigne Ndiaye dañ na ko suñu borom yërëm te xaar ko ci àjjana ci biir koor gi ci woor ba ngoon jot nekkoon turbi daan malaise suñu borom yóbbu ko ñu ngi na ko suñu borom yërëm ñu ñaanal tamit sama jarbaat bi mm-hmm. bi di nuyu di jaale tamit béy di inte kat gis naa wax dëgg yàlla famille bi yëpp maa ngi leen di gis fii di ko ñaanal suñu borom yërëm ko te xaar ko ci àjjana firdawsi di ñaanal sama jarbaat yi tamit yàlla leen suñu borom yërëm taxaare ci àjjana firdawsi waaw di sant ñëpp nag di sant journaliste di gis naa seen di leen masaw coono parce que tamit di gis naa seen di woo waa Cambérène Mbawar Mbawar yëpp di leen wax ni combat seen combat la di woo ñëpp di woo ogo ogo gis naa seen taxawaay waa golf waa waa Dalifort waa ginnaaw raay tamit maa leen di woo bu baax a baax di nuyu samay nijaay samay bàjjen di nuyu sama waa kër sant naa sama yaay nekk foofu yëpp sant naa journaliste yi jërë ngeen jëf. jërëjëf jërëjëf ñu gis tey Papa Sow ñëw Modou Lo ñëw ñëpp ñëw. non loolu sa diggante sa relation. non loolu ki nga tuddee sa bopp dégg naa sànq ba xam combat bi dégg nga ko ci ak boo ko ci déggee lan la la. non gar garga maa ngi moom ñoo bokk ndey ak baay ku nekk xam ne suñu diggante comprendre nga li ñu koy ñaanal rek mooy yàlla loolu defal. ko jàmm ngeen ci combat gargaaw suñu déggantee buñ déggantewul lépp moom ku xam na ni maa moom benn la duñ ñaar écurie moo ñu tàqale nag nit ku ne am nga droit def sa choix waaye garga sama mag la te sama mag lay mosoon nekk parce que staffam yëpp ñu ngi sama ginnaaw ñoom Lamine am nga ñoom Dev gars yëpp maa ngi ñoom réeroowuñ ci dara moom di ko ñaanal yàlla ko suñu borom defal jàmm di nuyu waa Cambérène ñoom jega di nuyu sama mafia bi nag bàyyi ma kenn ziar naa leen merci beaucoup journaliste jaajëf